ami téléspectateur de Dentale TV dalati leen ak jàmm tey nag dañoo xëy dikk ak yéen ci li nga xamante ne moom moo di buzz bi nga xamante ne moom moo gën a nekk actualité fii ci réew mi ñëpp di ko waxtaanee kan moo def buzz bi rakk Boury Bathily ji ñu gën ko xam ci Soumboulou Bathily mu nekkoon ci série bu mag boobu daan daw ca TFM di wiiri wiiri ginnaaw biñ ko dalalee démb ci ngondal moom ak ki nga xamante ne moom moo di saaneex kilifa ak ndoy baan ñoo feggee woon émission bi biñ koy posé question nag ci li nga xamante ne moom moo di jàngoro ji di Covid 19 ñu gën ko xam ci coronavirus jëla la sumbulu daal di defee buzz nag di ci xamal ne ñi nga xamante ne ay kaw-kaw lañ nekk ci nitu àll yi nag ñoom ñoom ñooñee lañ gën a war a mën a ñaax ba ñu indi ay comportement yoo xamante ne dañ koy def parce que nee na nitu àll yooyu kat ñoom foo leen fekk dañuy jël seeni loxo di luqati seeni bakkan ak li nga xamante ne moom moo di civisme defuñu ko setuñu dañoo tilim bu ñu duggee Dakar rek nga xam ne ñii dañoo paas dikk loolu propos yooyu la ki nga xamante ne moom moo di sumbul bàcci li daal di koy def ci ñi ne ñoom ñoo di kaw kaw ca la noonee rek Cheikh Sarr daal di koy tontu bu Zik FM euh, ne ko ki nga xamante ne euh, moom moo di sumbul bàcc li yow boo nekkul kaw kaw sa baay wala sa yaay kaw kaw la kon donc bala ngaa waxati del xool bu baax a baax li ngay wax ca noonee la ko ki nga xamante moom moo di kilifa bu yaanaamaar di ko tontu ne que pourtant de kaw-kaw yooyu noonu ñoom ñoo ëpp éducation parce que ñoom boo fekkee seeni dëkk fu ñu nekk ñoom dañuy bale dañuy sax tamete fii duñ ko def réewu taax seetu ginaar lañuy set kon donc sumbul bàcc li moom moo wax loolu ginnaaw ba mu tegee baaraamu tuuma ñi nga xamante ne ñoom ñooy nitu àll yi kaw-kaw yi ne ñoom civilisé wuñu maanaam seeni comportement baaxul éducation bu baax sax amuñu ko donc maanaka ba ci yar gi sax demewul noonu donc seeni solin ak seeni jëfalin baaxul kon donc nee yooyu la ñu war a sensibiliser wax leen que ni ñu changer seen comportement de vie ñoom ñooñu lañ gën a war a mën a motiver ca noonee nag la rakk Boury Bathily gi génnee nag tey ci suba di def benn vidéo boo xamante ne da ciy excusé wu ne moom moo tooñ kon donc mu ngi jéggalu bu baax a baax a baax di wax ne moom moomu rek kaw kaw la en même temps que ni nag mi ngi dëkk ci benn village boo xamante ne ma nga nekk fële ca Mali kon donc Soumboulou li daal moom moo nekk buzz bi nga xamante ne moom moo fi am tey ci suba donc gannaaw bi mu dalee ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di kaw kaw yi